xiif tax na yenn mag ñi yooy rajim aawuzu billahi min asaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi aawuzu bika min amazaati sayaatin wa aawuzu rabbi an yaxdurul mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokk yi nga xam ne yéen ñuy bàyyi xel ci rajo télévision Assalaamy FM ci 99 point 0 fii ci Touba Paleen ci route des Grandes Mosquées ñoo ngi leen di nuyu di leen ziara di leen jaajëfal di leen jox seen wàccuwaay di ñaan kàddu gu fekke leen ci jàmm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 njabootu ak Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul di nuyu suñu mbokki Baay Faal yi di nuyu itam mboolem këri xalifa diin yi ñoom ñëpp mag leen di nuyu di leen siyaara te di leen jaajëfal di leen jox seen wàccuwaay mbokk yi seen émission Hilmul Asraar ngeen ci ànd ak seen mbokk seen xarit Seydina Ousmane bu Serigne Saliou sañu Abibu Caam nekkal ñu ci wàllum xarale gi ba ngeen man ñoo déglu ci son bu set waaye itam man ñoo seetaan ci ay image yu mucc ayib am mbooleem ñi nga xam ne ne ñoom la feggool ca liggéey ba ku ci mel ne Baye Cheikh ak ganam sëriñ Saalihu Njaay waaye itam sëñ Sànna bi yaay waaye di si jiital bu baax a baax njiitul kër gi muy bàyyi Fallou Gala Silla ak mbooleem waa këram ak i soppeem ak am di jàmm yi di leen beral na yoo di leen siyaara fi leen baaxoo na yoo fi leen baaxoo siyaara altine jusine ci waxtu wi mbokk yi incha xam naa ngir njëkkante ak waxtu wi damay fàttali numéro bi ñu door a yaatal li nga xam ne mooy liggéey bi ci 88 628 53 53 88 628 53 53 yow mi am ay gént bëgg ku ci dimbale wala nga ko bëgg ku la seetal incha allahu rabbi ci seet boo xam ne nii bu mucc ayib la waaye. seet bu jëmaat ci wàllu xel mu nujum muy xam-xamu biddiw waaye itam mbokk yi yow mi nga xam ne ni da ngaa bëgg xam sa poids mystique mën a nekk soo bëggee xam itam lan moo nekk sa tabixa suuf la ngelaw la ndox la waaye itam yow sa jëmm lan mooy nekk sa biddiw gannaaw ba nga xamee sa tabixa ak itam solo si nga xam ne nii am na ko ndax nit ki dafa war a xam tabixa bi wala xam biddim waaye war a xam yan xeeta sarax mooy sarax yi nga xam ne nii moo gën ci moom loolu mu waral ma leen di ubbil antenne bi asalaamaaleykum mu mel ni mbokk yi ñu ngi commencé yëglu waaye incha allah ku si ñëw rek ñu mën a ànd ak moom ci 88 628 53 53 88 628 53 53 incha allah ñu mën a ànd ak ñoom ci wàllum. zer gi ak firi gént gi ak la ci ajo kenn ku ci nag boo ñëwee fa la yitteel rek mën nañoo ànd ak yow foofu incha allah su fekkee da nga bëgg a jugee ci barab dem ci beneen barab moo xam da ngaa bëgg tukki wala tuxu wala sanc barab ak yu ni mel jaalal ci 88 628 53 53 88 628 53 53 incha allah boo ñëwee ñu mën la xoolal kon nañu bàyyi xel mbokk yi ci 88. 628 53 53 88 628 53 53 ku jaar foofu boo ñëwee sañ Abibu Caam ubbi la nga mën a jokkoo ak man incha allah di la fàttali itam ne boo wootee da ngay bës 1 soo bësi 1 ci may mën a jotee su fekkee rek maa bëgg bàyyil missage da ngay bës 2 tous de ngay bës nga mën ma bàyyil foofa message incha allahu rabbi mbokk yi di fàttali ñu ngi ci studio soxna ent Ndiaye studio soxna Anta Ndiaye lañ nekk mbokk yi tey sunu waxtaan man ak yéen waaye bala ma ñëw ci waxtaan yi mu mel ni am na laaj euh, bu fi jaaroon wala laaj yu fi jaaroon ñu xool ko door a ànd ak mbokk yi ci gàttal incha allah euh, bi si jiitu kii mu ne Seydina Ousmane man damay gént lu bëri waaye su ma yeewoo dama koy fàtte gént di fàtte am na ñaare étape bi si mooy xel mu naqari dana ko waral ñaareel ba itam bëri ay yitti dana ko waral maanaam aaju ju bari ba nga xam ne ni yow sax xel ma saa yooyu tëdd ci it ja nga am rek ci la xel ma di nekk ba saa yoo génte itam day gaaw a génn ci sam xel waaye sam xel day gaaw a delluwaat ci sa itte nga xam ne sax danga gis koo xam ne ni day tëdd di gént mu war a def suba ndax lan ay itti yu bëri kon loolu dana ko sabab waaye itam gént di fàtte su fekkee dafa ànd ak si yii ma lay wax rab dana ko def ci yow ndax rab woowa lala sa rawxaan di wan la bëggul nga koy xam lala sa rawxaan di wan ngir nga man caa gindikoo la bëggul nga di ko xam moo tax mu di la fàtteloo kon gént di fàtte yooyu dana ko sabab su fekkee ñaari da ngay faral di gaaw a mer te kenn du la def dara loolu su àndee gént di fàtte rab dana ko waral waaye itam gaaw a mer nekkul ne rab rek moo ko def waaye am na si ñooñ seen tabihan nature bu nekk mooy waral ñoom seen jëmm dañuy gaaw a tàng waaye itam mën nañoo di gaaw a sedd waaye itam du si yem mën nañoo jëflante ku ne waaye léeg-léeg nag seen tàngoor woowa mooy leen di yàqal la ñuy jëflante doomu aadama yi kon loolu itam dafa mat a xam ci kii leeral gént walla kii leerlu gént mu xam ko ndax li may faral di wax ma ne gént tegtaliwul rek ne dama gént di naaw dangay naaw déedéet nit ki mën na gént di naaw moo tekki ak kawe ci moom nit ki mën naa gént di naaw ñu ko wane ko ak yokkute la ci yow fekk mama booba mu ngay jëfandikoo saafara maanaam am na ay ñaan yu ñu ko jox mu koy jëfandikoo wala benn turu yàlla bu ñu ko jox mu koy jëfandikoo liggéey ko ay fan di gént di naaw mais am na koo xam ne tey bu géntoon di naaw sax day tiit yaakaar ne leneen la waaye mama booba am na keneen koo xam ne nii mën na gént di naaw waaye dafa dem ba ci kanam mu daanu wala yasubillah loolu nekkul la gën ci biir gént ga ndax ay jafe-jafe gannaaw ba xéewal ga taxawee moo ca topp yéen a ngi kon loolu dañu bëgg nañu xam ko. Assalaamy FM. macha allah. 99 point 0 Touba. jërëjëf sama technicien kon ci laa leen di fàttali yoonu muy 88 628 53 53 88 628 53 53 yi ngir yow mi nga xam ne ni dangaa ngaa bëgg firlu gént wala nga bëgg ko la xoolal. sa diggante ak soxna si nga xam ne nii moom ngay labat wala barab bi nga bëgg a sanc wala soxna si nga xam ne nii danga caa dugg pare ay bang bang di ca maanaam ay jafe-jafe nga bëgg caa gindeeku incha allahu rabbi jaaral ci 88 628 53 53 88 628 53 53 même yow mi nga xam ne ni yaa may seetaan numéro boobu ngay gis ci baa écran bi incha allah rabbi mën nga caa jaar muy 88 628 53 53. kon loolu dafa mat a xam ci gént ak tolluwaay ba nit ka am di gént parce que damay faral di wax ne am na ci kok ma ngay gént. waaye ba muy gént jamono booba moom si jëmmam kat dafa fanaanoo njàpp mais am na ci koo xam ne nii ba muy gént fanaanoo njàpp sobe la fanaanoo waaye am na ci koo xam ne nii dafa fanaanoo njàpp waaye yi mu ci da doon liggéey turu yàlla wala muy def ay istixfaar tëdd am lu gént ñu wan ko ko maanaam gént moom euh, muy lii la ñëwee ci nelaw benn muy guddi wala muy bëccëg waaye message la bu ñu la envoyé léegi nag gannaaw message booba ba nga ko ubbee ba jàkkarloo ak moom lan nga ca mën a xamee ban avantage la exemple man maa ngi def émission sëñ Abibou Thiam ba nga xam ne ne mu ngi gis te gisuma ko mu envoyé ma message ne ma laalal micro bi tuuti wala mu ma orienté wul tuuti wala mu am lu may wax envoyé ma message. fekk na message booba jamono ba ma koy envoyé li tax mu ma koy envoyé mooy li ma nekk ci plateau bi. Assalaamy FM. waaye su ma xasee génn plateau bi message booba intéressé wu ma intéressé wu tut waaye dana tax ëllëg ma man caa bàyyi xel ndax lan mankat su ma toogee war na ma xool sama téléphone léeg-léeg di ko bàyyi xel ndax technicien bu may yónnee message naan ma lii ak lee ak lale wala sax bàyyi fàllu ma nekk ca kër ga naan ma jàllale lii jàllale lii ci biir émission bi wala wala walla léegi nag message booba saa yu ma defee émission ba pare door ko gis ma ne ah man ndekente doon lañ may envoyé message de ba may def émission mais noppi naa émission boobu message booba ci biir émission bi ci lañ ko soxloo ndax kooka message ba may envoyé ci émission bi la bëggoon mu jàll émission bi jeex na mais danaa ci bàyyi xel ëllëg am na koo xam ne ni tey dafa envoyé message di la nuyu di la wan maa ngi lay bàyyi xel am na koo xam ne ma ngay biir message ne ah kon léegi fii ngi nekk am na koo xam ne mu ngay bind message nag di firlu gént ak di listixaarlu waaye kooku kon dafa war a jaar ci 88 628 53 53 ñu mën a déggante ak moom man koo firil ay géntam wala man koo setal incha allahu rabbi ba léegi yow mi nga xam ne nii eh, danga demoon ci ak kër gane ba jóg di dem am ku la bëgg woo waaye amul kër crédit mu envoyé la message ne la s'il am na loo fi fàtte message boobu liiroo ko dem nga baag nga ne eh, xool xool sa bagage gisoo dara nga ne man de sa waay am na lu ma fàtte de kër ga ma daloon benn wala mu wadd ci yoon wi nga ne xaaral ma jël sama téléphone woote fa ma jógee ndax bàyyiwuma ko fa nga jël sa téléphone ubbi xool bëgg woote gis am message ci kaw nga ne xaaral ma xool message bii ma ne pourtant message bii da bañ ma ko envoyé boobaak léegi 30 minutes la. yéen a ngi déglu. nga daal di xool nga ne xool ñeent yi tombul dara. pourtant man de li ma fàtte pourtant kii loolu la ma bind message naan am na loo fàtte su ma teeloon a gis message bi ma yëg oto bi wala du ma jël taxi di perte sama xaalis damay dem récupérer ko ndax man lii moo taxoon a dem kon missage boobu danga koy yéex a liir moo tax après ba nga ko liiree nag ak rëccuti moo ci topp. am na koo xam ne nii tey ma ngi la envoyé benn message transfert d'argent ngir nga war koo dem génn ji waaye message booba mën koo génne ci guddi gi mën koo génne suba mën koo génn gannaaw suba kem soxla ba tax ñu lay envoyé xaalis booba kem fa soxla ba toll moo tax ma ne la gént yi mën nañoo bari waaye mën nañoo am ak wuute kon ma fàttali numéro bi mooy 88 628 53 53 euh, 88 628 53 53 88 628 53 53 incha allah yow mi bëgg firilu sa gént wala nga bëgg seetlu ay tawat yu nekk sa yaram wala itam soxna si nga yor wàllum njaboot da cee jafe boobaag léegi nag mënoo xam lan mooy sabab bi nga bëgg ci gindee ko incha allah jaara ci 88 628 53 53 même dafa am mbir moo bëggoon a dugg di ci xel yaar naan gën na ci man ak gënul ci man mbir mi am na ak mujj walla amut ak mujj mbir mi baax na ci man wala baaxul ci man lenn lu ci ne mën nañ ko càmbar incha allahu bi indi la ci ay leeral ba soobee kii maye mbokk yi kon ñu fàttaliwaat numéro bi mooy 88 628 53 53 88 628 53 53 foofu ngeen di jaar ngir ngeen mën maa jot incha allah yow bu may seetaan ci télé bi mën nga jaar ci 88 628 53 53 moom ngay gis noonu ci baa écran bi ba léegi nga jaar ci ngir mën a gindeeku kon ñu ñëw ci beneen laaj bi waaye ba lañ ci ñëw. ma bàyyi sama technicien may ma son yëkkatil ma tuuti sonnerie ma ñëw àndaate yoon ci yaatal gi allah rab bi ci 88 628 53 53. Bamba ko ñaan ci xel mi gënee li daam yi ko takk di roo mbaaxalima ki daayu xool lottu na mboolem xam yi xar la raw na kuy xiyaas lu xel dajul def ko raas fu ku raas la raw na gooru faas saakaañi teewe xel macha allah jërëjëf sama technicien ci liggéey bu am solo bi muy sëriñ Habibou Thiam borom ndogal production ñu ngi koy jaajëfalaat bu baax waaye mboolem ñoo xam ne nii tam ñu ngi ci immeuble bi ñu ne te di dañu bàyyi xel moo xam ci seen télévision yi la wala ci 99 point 0 ñoom itam ak li leen nuyu di leen siyaarawaat te di leen ñaanal jàmm ci sax te ànd ak tawféex. Euh, ñaareelu laaj bi kii mu ni Seydina Ousmane sama sama yaakaar day faral di tas waaw yaakaar booy tas nag eh, li koy sabab bari na yaakaar buy tas ndax cat mën na koo def ci nit ki léegi nag bu ñu waxee cat gis nga cat rek mën nañ cee def ay émission yi émission te du jeex yi mi cat ci boppam waaw cat ndax buñ ni cat mooy lan ak lan lay def ci nit ki ak lan la mën a yàqal nit ki cat mooy li topp nit ki mën naa nekk catu làmmiñ mën naa nekk cat bu bàyyi ko ci bët mën naa nekk cat boo xam ne nii li la daal kurus la maanaam laa catu kooko dalaa añaane moo tax mu jël kurus di def ci yow ba cat dugg la nga xam ne foo génn rek lijjanti dara pour mu sotti dana jafe am na ci koo xam ne nii a rab moo ko koy def. a Assalaam FM 99 point 0 Touba. yéen gi ngi yu kon loolu dem day mat a xam mais mënuma tëb tëb ne la cat rek rab koy def ci nit wala man la cat lamiñ moo koy def ci nit wala man la cat bët moo koy def ci nit mais bu ko bët defee ci nit ban bët la bëtt ku góor ki la wala bëtt ku jigéen. bëtu ndaw la wala bëtu mag lan moo tax bët boobu mu di la ko xool ba di la yàqal moo ko jublu wala jublu ci parce que léeg-léeg nit mën na laa xool bët boo xam ne nii xoolu pour yàqal la mais dara la xool rek ndax na la yàlla bindee moo tax moo xam ku taar la ku taaru la moo xam ku ñaaw lañu ñu baal ma ci kadd gi waaye damay leeram moo tax nit kii mën na catu boppam catu boppam waaw nit mën naa catu boppam naka lay catu boppam da gis koo xam ne nii tey euh, day dem ci marché ba jënd yére bu baax bu seer sol balaa génn fam ne jël téléphone daldi dal di sinap yére nga may gis de damaa jongoma ba yàqu nee na daa jongoma ba yàqu baatu daa yàqu googu rek mën na koo yàq moom ci jëmmam dama jëlal nag publier gam ko def publier ku ne di wax ci moom ñii di wax ci moom lu baax ñii di wax ci moom safaan ba waree si billah kii xanaa daa dof lu ko dal xoola yére yi mu sol ni mu gàttee moom mu naan damaa ba dof xoola kii yëre yi sol ni muy lëfër lëfër yi mel ni nangam naan damaa sañc ba yàqu kenn ku ci ne ak dama gisee léegi nag ñooñe di wax est-ce que ñëpp la seen làmmiñ nekk làmmiñ woo xam ne ni amul dansé wala ñëpp la seen làmmiñ nekk làmmiñ yu am daase moo tax léegi léeg nit ki balaa sol yëre dafa war di ko léemu léegi la ngay jënd ay yére rek yóbbu ñaw ñëw rek événement jot wala sax la taxoon nga ñaw ko nga jël sol bisimilah doo si jaara doo léemu sunu mag ñi dañ daa def ne boo xotti ay yëre wala jox la ab yére bala nga ko sol mu yére bu bees ci yow xam nga yére mën naa bees ci yow te du bees waaye yëri mën naa bees ba pare bees ci yow suñu mag ñi dañ daal léemu jël ndox ñaan ca tëfli wis ca ndox ma wala tëfli ci ndox ma wis ko ci yëri ya ne yàlla na ràpp ak jàmm te nga ràppal ko te balaa ràppa yeneen xéewal dollee ko ca allahu akbar oh, sama xel dal dem ci Abba Bakar ñu koy wax mbay sàppar sàppar maa ngi koy ñaanal bu baax a baax yërmande yi sunu borom bi ma tax laa dool lekkuwaat ci moom exemple la ci rek exemple la ci rek ndax kenn ku ci ne wala ñi ñu ko xam xam ne ni moom yàgg naa ñaan am oto waaye gis nga otom ba lam ko jural kon nit ki la ma cee jubla wax mooy kuy ñaan na ngay ñaan lu gën ci yow lii may ñaan boo gënee ci man yàlla na ko yàlla saa borom subhaanahu wa taala jàppandal sama xel dem ci xaritam Cheikh Abdou Nugum Nugum maa ngi lay nuyu di la ziyaara ak Abdoulaye Naar ak mbooleem xarit yi ak soppi Cheikh Abdou Nugum Nugum yi kon ñu jàll ci beneen ponk waaye boo gisee ñu laal foofu dañuy leeral doomu aadama yi parce que yaakaar bi juddu taxaw moo tax hmm, waaw ngay wax ay junni junni doomu aadama di la déglu ñii di la seetaan ci télé bi ñii di la seetaan ci youtube bi ñenn ñu seen ne ak fañ ne ñii di la ci quatre-vingt-dix-neuf point zéro ñii nekk ci facebook ba ñii nekk ci assalaamiya point net ñu nekk ci assalaamiya tv ñenn ñu seen ak fañ ne di déglu kon booy leeral war nga leeral loo xam ne nii xel da koy nangu borom xam-xam yi lay déglu itam nga leen di bàyyi xel mais di waxee sa teeyu bakkan bañ a wax rek ni man daal li mooy sama xalaat naa ko wax déedéet mbir mi dafa tegu ci xam-xam mais tegul ci wax loola neex rek kon ma fàttali numéro téléphone bi mooy 88 628 53 53 88 628 53 53 incha allah su mbokk ñëwee ñu mën koo jël ci 88. vingt 628 53 53 88 628 53 53 mu mel ni waxtu wa ma ngay dox ndax 20 heure jot na ba tegal 44 ci ay simili waaye damay faral di wax ne buñ ko rediffusion itam ngay déglu émission bi du tee mën nga woote ndax suñu technicien ñi ngi fi sab nga bàyyi ko fi ñoom suma teewaate incha allah rabi ñu indi ko. walla boo woote te ñu rajo fisuma ko ñu ne la altine bu ci ne lay am vingt heures jàpp vingt une heure demi jëm vingt trois heures sax ça n'est pas ci temps bi lim ñu may kon kii wax ne man sama yaakaar day tas ci lu bari la gën mooy mu woote ñu xoolal ko ba xam yaakaar jooja lan moo tax muy tas waaw ki wax ne yaakaaram day faral di tas lu bëree bari na woote ñu xoolal ko lan moo tax yaakaaram di tas waaye yii ma wax de bokk na ci lii tas yaakaar say mbir wartu siiw nga siiwal ko rab wu nekk ak yow faru rab la walla rab la woo xam ne ni dalaa dugg léegi nag raw wa naka la duggee yaa ko fekk ci barab bu nekk nga bëgg faa sànc moo xam kër la moo xam palaas la moo xam ay tool sax yoo xam ne nii dañ fa bëgg a bay tarab rab ba ne fa te defoo fa benn ñaan ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ñaan mooy nga nayul jullit mais dafa mel ni message boobu am na ñu ko dégg waaye am na ñu ko déggut mais nag ñaan la wax kon yow mën ngaa ñaanal sa bopp soo demee ba nga xam ne nag Sidna Ousmane nga gën a am ci confiance ci sa bopp nga dem ci moom mu ñaanal waaye nag bu lay ñaanal mu teg ko ci ragal yàlla bañ koo teg ci rek ne diw sàngam ñëw na am na ci man yaakaar lu ma neex laa koy jox déedéet oustaz Kabara maa ngi lay ziare bu baax a baax oustaz Abdoulaye Sorong maa ngi koy nuyu di ko ziare ak alxaaji Wilane ak waa këram di leen nuyu bu baax a baax te di leen ziare euh, ndeysaan sama xel dem ci sama benn xarit boo xam ne du tudd turam ndax xaw ma bëgg na ku tudd turam ci média bi di jàllale li ko dal wala déet waaye mbokk yi sécurité bi day war nañ koo dolliwaat bu baax a baax ci dëkk bu sell bi di tubaa parce que barki démboo njaay muy samedi bii takkusaan jant bi soogu ni dàng ci kaw ñu kar borab benn moto muy ku ma xam ña ko kar yor benn jakarta dogale ko fel ko ñoom ñu daanoo fële moom motoom fay mu taxaw afan muy taalaat gaa yi ci kawam di ko cor ay jaasi mu téye jaasi ja ba gaa yi jëflante ak moom ba nangu saak ba mu yoroon tey ay téléphone am nekk ca te tey ñaati doomu aadama ñoo koy soxla te mënuñ koo jot 99 point 0 Touba. Assalaamy FM. Assalaamy FM. muy lu métti loo xam ne dañ koy méttilu ba ci kanam yàlla du ñaan yàlla leen yàlla nit bëccëgoo ndar kàmm yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def ndax lu métti la borom njaboot la bëccëgoo ndar kàmm maanaam ay tàkkusaan nit ñi taxaw di xoole la ci gën a doy waar ab taxi boo fa taxawoon ci côté booba mu ne ko toppal ma leen mu ne ko ñëwee su ma demee du ma leen dab moom kay na waslu àq rek toppal ma leen ma fay la muntu jéem a waslu àq toppaleen leen di klaxonné ñu xam ne ñii am na luñ def ñu jéem leen a kar waaye day mel ni la benn kilifa waxoon ne suñu sàgganee ba suñuy fukk fukk gën a néew suñuy benn benn maanaam bu ñu sàgganee ba suñuy benn benn dem ba ful suñuy fukk fukk ak càkkanti mu nga foofu loolu mooy lan ku def benn bu baax yàlla saa borom subhaanahu wa taala fulula ko bi mu fukk ku def benn safaan ñu bind la benn safaan booba boo tuubee yàlla jéggal la ñuy xoolee ba fukki nit wala lu ko ëpp mën a taxaw cib koñ ñii ne fee ñii ne fee di séen ñu ku ñuy def jëf ju ñaaw joo ñu taxaw di ko seetaan ndax yow moom a taxaw di seetaan kooka bu tourné muntu dal sa kaw def la kam noonu maanaam defkatu ñaaw téef bëggul mbooloo bëggul ku ko siiwal ndax la benn policier waxoon rek mu ni defkatu ñaaw téef yi ñoo ñoom la ci kaw télé bi bu policier yéegi ci kaw télé bi defkatu ñaaw téef yi wàcc bu defkatu ñaaw téef yi yéegi euh, wàcce euh, bu policier yéegi ci kaw télé bi maanaam defkatu ñaaw yi wàcc waaye bu defkatu ñaaw téef yi wàccee police yooyu tam dañoo war a wàcc xool leen ci mbedd mi lam jublu wax foofu mooy buñ di wàcc terrain bi maanaam nañuy surveiller terrain bi te léegi waaye maa ngi leen ñaan tamit yéen sama mbokk police yi ñuy dimbalewaat bu baax a baax doomu aadama yi di dalal seen xel maanaam yéen a ngi waaye ñu gën ko dolli ndax nit dana ñëw yow ci jaaxle mais am nooy wax moom rek da koy yokk ak jaaxle kon yéen itam maa ngi leen di nuyu di leen siyaar di ñaan bu baax yàlla saa baru saa taala doole leen dafa jàmm ju saxtaan taan ak feex ndax liggéey bu métti ngeen yor waaw heure bu ci ne ngeen di ko jug di ko dugg ci dëkk bi ngir kaaraange ngir sécurité kon ñu gën leen a jaajëfal kon euh, loolu benn point ponk rek wala benn tomb boo xam ne nii rek dafa nekkoon lu ma tiis lool ma ko jàllale waale di ko ñaawlu waale ngir nit ñi dem gën ci bàyyi xel waaw bu dee soog sax demal xool waaye am na ñoo xam ne danaan ah soog la rekk ñoom ñaar dañoo mbëkkante fekk du loolu gars seen moyen lañ yor dañuy dox bàyyi seex gars yi dañuy dox ci xelu nit ñi moo tax nañu ñaw njort di ñaaw njort waaw nañu ñaw njort di ñaaw njort

88 628 53 53 88 628 53 53 mooy bu mag jokkoo gi su ko defee ngeen mën ci jaar ñu xoolal leen incha allah rabbi wax la lan mooy sa tabax wax la lan mooy sa biddiw ak yow yan xeeti sarax moo gën ci yow incha allah rabbi su fekkee lenn ci ay jafe yi tam dafa nekk ci yow ba léegi mën nga jaar ci 88 628 53 53 88 628 88 628 53 53 tabe xawi lan la yu wala turaabi yu xawa yu la wala maa biddiw bi itam lan la moom kat samsu la wala xamar la mariix la wala xutaari mostari la wala zoxoratu la wala zoxal la ak tam yow si jëmm itam yan xeeti sarax mooy sarax yi nga xam ne nii mooy gën ci yow incha allah rabbi ngir aaju bi nga xam ne ni yaa ngi koy am yàlla sama borom bi subhaanahu wa taala man la caa dimbali man la koo fajal kon mën nga jaar ci 88 628 53 53 88 628 53 53 88 628 53 53 88 628 53 53 kon yow mi amoon laaj boobu muy lu jëm ci wàllum cat muy yaakaar buy tas yaakaar buy tas li ma la ci waxoon loolu waaye daal li gën a wérte woon mooy nga jaar ci 88 628 53 53 boo ñëwee ñu mën a jëlaale sa tur incha allahu rabbi man di ko xoolal mën na caa gindeeku waaye li ma la wax daal bokk na ci lii waral yaakaar boo tas muy rab dana ko def cet dana ko def moo xam catal bët la moo xam catal lamiñ la moo xam cat la lu bàyyi ko yow si jëmm sax mi naan yaakaar juy tas dama daal wala say jege ñaale jege ñaale ñooyu nag moo xam say mbokk ba palañ moo xam say mbokki dëkkandoo moo xam say mbokk yu la sori te ngeen bokk dëkk waaw parce que nit mën naa nekk Italie yow ma nekk Italie gën a xam diw sàngam mi nekk fii ci koñ bi ndax lan internet bay tax waxtu wuñ ma ngi ci TikTok ba da ngeen dem ba yéen dëkkaale nga xam ne ko nekk ci TikTok ba nga ci aajo yéen da ngeen a xamante seen biir kon ay dëkkandoo yu sori dana am loolu lépp mën naa delluwaat ci cadre cat kon nañuy euh, woote ci 88 628 53 53 88 628 53 53 88 628 53 53 incha allah bu ngeen ñëwee ñu mën a ànd ak yéen ci téléphone bi ku ci am ay gént. wala mu bëgg ko xoolal mën naa jaar foofa ba léegi yow soxna si nga xam ne nii itam da ngaa bëgg dugg ci mbiram borom kër di ci xeliyaar kii gën na ci mën wala gënu ci mën waxuma nag jëmma ji baax na de ndax yéen ñaar bu ngay àndee alhamdulilah waa wala dit parce que nit mën na baax lool nga dugg ca te pour li nga am nga bëgg ko day jafe loolu ma waral rek ñu bëgg ngeen jaar ci 88 628 53 53 ñu mën leen a gindi ci pàttali bu buniis ak buuñaa du woote bu buniis ak buuñaa du woote waaye loo am ci crédit lum néew néew da nga mën a woote soo defee vingt 628 53 53 nga bës tous nga mën maa jot en direct ci rajo Assalaamy FM ci 99 point 0 lay mel ni kon laajo yi xam naa euh, moo fi teewoon Euh, waaw 88 628 53 53 88 628 53 53 soo ma bëggee bàyyil message itam soo defee 88 628 53 53 da ngay bës tous 2 soo bësee tous 2 nga mën maa bàyyil foofu message su ko defee itam sunu mbokki techniciens yi danañ ñu jottali laaj booba nga xam ne nii moom nga doon laaj kon ba léegi mën ngeen def 88 628 53 53 di nuyu ak siyaar nag sama waa kër fële ci Touba Euh, ak mbokk dëkkandoo yi ñoom ñëpp ñu ngi leen nuyu di leen siyaar te di leen jox seen wàccuwaay ba léegi mën nañoo xoolaat keneen ci téléphone bi ci 88 628 53 53 88 628 53 53 88 628 53 53 jërëjëf sëñ Moustapha Mbaye ñu ngi lay nuyu te di la ziar di la jox sa wàccuwaay ba léegi mën nañoo xool keneen ci 88 628 53 53 88 628 53 53. 88 628 53 53 su fekkee mbokk mi danga am soxna soo xam ne nii day nef nef nef mooy lan mooy njur gu jege moom daal li am doom day jege lool waaye dem na ba lu ngi nar saa judd bu ñu wax soreel njur day fekk am lu laxasu ci la ngay def mais bul sukkus ne ko rek ne man daal xale yi dañoo bëri rek li may am doom daa bëri mënumaa toppatoo sama bopp déedéet loolu waxee ko daanu ci sareet la sooy soril njur day fekk ne xale ba nga yor balaa fer yow nga tolluwaat diggante maanaam daanaka kee buy fer ak booy am doom benn lay doon nga xam ne la war ca Euh, toppatoo ga doo ko mën nga dem ba loraange nar ca am toppatoo ga ca war ci xeetu toppatoo ga rek waaw 99.0 Touba. jërëjëf ci toppatoo ga ci war rek moo xam gan façon gan xeetu toppatoo la su boobaa man ngaa def li ñuy wax planique maanaam fexe suril sa njur waaye nag bu kenn def rek ci. bëgg man daal damaa bëgg toppatoo sama sama bopp man daal gis naa ni li may am doom dafa jege damaa commencé jeex nangam nàngam wala sama borom kër bëggul njaboot gu jege. ñu xool keneen ci 88 628 53 53 88 628 53 53 seen émission Hilmul Asrar fii ci rajo Assalaamy FM wala rajo télévision Assalaamy FM ci 99.0 mbokk yi mën nañu dañu bàyyi xel ca YouTube ba léegi ci 99.0. ci bandu FM bu dee ci YouTube bindal asalaamiya asalaamiya ne nan lañ ko bindee da ngay def bref A double S maanaam A ñaare es nga defaat A def L defaat ñaare A def M def Y nga mën ñoo seetaan incha allah ci image yu mucc ayib ca YouTube ba incha allahu rabbi kon 88 628 53 53 88 628 53 53 88 628 53 53 ba léegi mbokk yi mën nañoo jaar foofu incha allah ba ñëwee ñu mën a ànd ak ñoom man leen a setal man leen a firil seeni gént euh, su fekkee jigéen joo xam ne nii day neef waaye naa mujjee jigéen ji def ñëw ci jigéen ju taxaw ndax kat bala ngaa wax nef war ngaa wax taxaw ñu xam ne itam jigéen ju taxaw bokkut ak jigéen ju mustu am tuut tànk déedéet ju taxaw mooy lan ci misaal ki daa dox jékki-jékki moom kat mënatut dox kooku ab doxam dafa taxaw su doxee ba si kanam mu ne sëcc taxaw loolu dafa taxaw waaye nag bu fekkee ne dafa dem ba dox mënatu ko su boobaa mooy mënatu dox waaye bu fekkee dafa taxaw dafa taxaw su déplacé doxat na loolu moo waral ñun leen jigéen ju taxaw dafa am ci ñooñ xàmmee guñ jigéen ju taxaw ak jigéen yu mos am doom kon woo yoon yi wuute na su fekkee ne jigéen ju taxaw la wutal li nga xam ne ne mooy tabaxu njulli kaata tabaxu njulli kaata waaye su boobaa boo koy wuddee danga koy jënd jëndee faatihatul kitaab muy alhamdu lillaahi rabbil alamin bam jeex soo ko jëndee fatiha doo ci yem soo ñëwee da ngay bindaat fatihatul kitaab def ko saafara soo ko defee saafara xooj ko boole ko ak tabaxu njulli kaate googu nga xam ne dindi woon nga ko jox ko mu di ko naan incha allah. Assalaamy FM. nag bu koy naan. dafa am jamono boo xam ne ni ci la koy naan. yéen a ngi déglu 99.0 Touba. jërëjëf ci liggéey bu am solo bi sama technicien sëñ Abibou Thiam su koy jëfandikoo dafa am jamono boo xam ne ni ci la koy jëfandikoo muy ban jamono jamono ba nga xam ne dafa gis mbaax ba noppi man du joxe di dagg parce que léeg nga gis kenn di joxe dara naan su ko bindee ba pare.

628 53 53 soo ko defee mbokk ya man a jaar ci xàll woowu ñëw ñu mën leen a xoola insha allahu rabbi wax la itam euh, say yitte ji tax nga woote mën la caa dimbale mën laa tegaat ci yoon bu soobee yàlla sunu borom bi subhaanahu wa kon 88 la 628 53 53 allo allo aha kooku ak seegul keneen bu ñëwee ñu jaar ko ci 88 628 53 88 628 53 53 88 628 53 53 di fàttali nag buuñaa ak ligne buuñaa ak ligne du woote waaye déedéet boo yoree crédit rek lu mu néew néew da ngay mën a ànd ak ñu allah kon jënd leen crédit normal ngeen mën a woote ci 88 628 53 53 88 628 53 53 su nekkee jigéen ju taxaw loolu nga koy defal kon. jigéen ju taxaw loolu mooy li nga xam ne rek moom lañ koy def incha allah ku ci bëgg ak leer nag bala ñoo jeexal da ngay woote nga leer la ko waaw kon bu fekkee ne jigéen la joo xam ne nii day faral di nef te lañu waxoon bu ñekk nekk ci moom ba loraange nar caa tàbbi su boobaa na ko def waaye bu koy def nii lay def jigéen juy neef wutal yaxu baaxoñ du ma la wax baaxoñ kese waaye dama lay wax ban baaxuñ nga war wut ak yaxam 88 la. 628 53 53. 99.0 Touba Assalaamy FM Assalaamy Assalaamy Assalaamy FM 99.0 Touba. Mhm. jërëjëf ci liggéey bu sell bi seen émission xelmul asraar ci rajo télévision Assalaamy FM ci 99.0 fii ci route de Grand Mosquée de Touba en face pencum Paalen ci studio Soxna Anta Ndiaye. seen mbokk seen xarit Seydina Ousmane bu Serigne Saliou nekk ci wàllum waxukaay bi askan mi nekk ci déglu bi ak seetaan bi waaye sëñ Abibou Thiam nekkal ñu ca wàllum xarale gi ba nga man ñoo seetaan ci image yu mucc ayib waaye itam man ñu déglu ci son bu set kon yoon wi mooy 88 628 53 53 88 628 53 53 88 628 53 53 su nekkee jigéen yoo xam ne nii day nepp wutal yaxu baaxoñ ban baaxoñ la doon baaxoñ borom baat bu ñuul bi wala sax borom baat bu weex bi laa bëgg wax ñu baal ma borom baat bu weex bi ngay wut soo ko wutee nga ëw ko def ko ndombo waaw soo ko defee ndomb di ko takk incha allah bi dootul nef li fii ak loola mang ca moom <laughs> xam naa léegi tey nag damay ragal ne baaxoñ ci boppam <laughs> xaw a jafe ndax lii parce que am na ci ñoo xam ne nii moom lii rek ci lañ sawar waaw suurul njur kon loolu laa lay jox ci lu mel su fekkee yow mi nga xam ne nii dangaa bëgg ubbeeku ci fatt risq mooy wàllu ubbeeku ci wàllu wërsëg ubbeeku

allo allo aha kooku accès na kon mën naa jilaat yoon wi rek li Wolof ñaa naan xëcc bu yendoo teeng bu daggul agsi kon jaaral ci yoon wi waman xara al baaba walaj walaj waman xara al baaba walaj walaj di fàttali itam yéen ñi nga xam ne dangeen di faral di woote lu ci mel ni buuñaa ak bunis day du woote buña ak bunis doo woote kon bu bëggee woote demal nga jënd crédit yaa xam sa poos fa mu toll ak say aajo fa mu toll incha allah bi nga man maa jot su fekkee itam dafa am ay tegtal yoo xam ne ni yaa ngi koy sàkku ngir sa jëmm su fekkee itam ma xam ko bu soobee sunu borom subhaanahu wa taala des na la ko baaxee su fekkee itam ma xam ko wala ma yor ko waaye nekkul ci bopp bi waaye mu ngi ci kàggu yi danaa la dig lan di incha allah rabbi prochaine su may ñëw àndaale ko su ma ñëwee tontu la ca kon lu tam lu am solo la kon ndekente yëmul rek ci woote ñu wax laa lan mooy sa tabexa mooy sa biddiw yow yan xeet sarax moo gën moo mooy sa sarax xam nga ne dafa yomb rek nit ko woote nga ko nanga mooy sa tabe waaye da nga ko war a laalal ci ay jikkoom ba xam ne li nga koy wax lu wér la waaye xuus ca moom ne ko sa biddiw nangam la sa biddiwu altine bi mu ngi génn heure tel ma ngay dugg heure tel altine ji ñaati yoon la ci mën a génn ak ñaati yoon la ci mën a dugg waaye itam altine ji itam sa biddiw bi su génnee lan mooy avantage sa biddiw bi bu génnee lan moo tax ñu naa la sa biddiw bi sàngam la moome ban manaasil la am lan mooy wàccuwaayam ak wàccuwaay booba itam lan lay jëriñ ci yow moo tax xam sa biddiwu lu baax la lu am solo la kon nit ki boo xamul biddiwam euh, du mën a du mën a du mën a mën a mën a dox yenn yi ci yenn heure yi xam naa ñi may woo sama téléphone dañoo jaawale waaye nañ jaar ci 88 628 53 53 lu mu wax sax dañoo jaawale waaye nañ jaar ci 88 lay wax 628 53 53 sama xel dem ci sama waa kër soxna jaara maa ngi leen nañu di leen ziyaara ak njaboot gi ñëpp rek sëriñ saalihu soxna maam Busa waaye soxna Maguette soxna Fatou Gueye Sall sëñ aadama Zoran soxna Astu waaye itam mboolem koo xam ne ni ak ñu bàyyee xel maa ngi leen nuyu di leen ziyaare sëriñ Saliou Ka fii ci 28 maa ngi di la siyaara moom itam kuy bàyyi xel émission bi la waaye itam xel dem ci sëriñ euh, Xaadim Mbay moom itam maa ngi di ko siyaara euh, kuy bàyyi xel émission bi la fii ci Daaru Manaan ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen kon ñoom ñëpp maa ngi leen di bëri nuyoo te di leen siyaara te di joxaat seen wàccuwaay di nuyuwaat bu baax ak a siyaare mboolem ñi nga xam ne ni ñooy yëngatoo fii ci kër gi. di leen nuyu di leen siyaare te di leen jox seen wàcc waaye di ñaan kaddu gu fekk leen ci jàmm kon yu woon wi mooy 88 628 53 53. Assalaamy FM 88 628 53 53 88 628 53 53 88 628 53 53 mbokk mi ngi yëg lu ñu ànd ak moom ci téléphone bi mbokk asalaamaaleykum. mbokk moomu génn na waaye mën naa ñëwaat ci 88 628 53 53 88 628 53 53 incha allah bu ñëwee ñu ànd ak moom ci jokkookaay gi kon 88 la 628 53 53 88 628 53 53 su mbokk ñëwee ñu mën a ànd ak moom incha allah ci wàllum téléphone bi. mu mel ni mbokk doon na yëglu léegi waaye mën naa defaat ni mu defoon jaar fi mu jaaroon ci 88 628. 53 53 88 628 53 53 incha allah ci seen rajo télévision Assalaamy FM ci 99 point 0 88 la 628 53 53 bu ko defee mbokk bu jaaree fi mu jaaroon bu ñëwee ñu mën a ànd ak moom ci téléphone bi incha allah rabi man koo xoolal bu fekkee ne day firi gént ñu mën koo firil ay géntam su fekkee tam koo xam ne day seetlu la incha allah bi ñu mën koo dimbale seetal ko. ba léegi mbokk yi 88 la 628 53 53 ci rajo télévision Assalaamy FM ci 99 point 0 kon ba léegi rek ñu xool keneen ci téléphone bi ci 88 628 53 53 88 628 53 53 88 628 53 53 mbokk mi doon fëgg mën na ñëwaat wala keneen def ni moom jaar fi mu jaaroon muy 88 ñaari 8 ngay def def 628. 5 3 5 3 ñaari 8 ngay def def 6 2 8 5 3 5 3 incha allah ku jaar foofu soo ñëwee rek ñu mën a jot soo ok da nga dégg mu yóbbule ci serveur vocal bi waaye su boobaa rek da ngay bës 1 soo bës yi 1 rek man maa jot en direct incha allah ci 88 628 53 53 88. 628 53 53 incha allah ku jaar foofu soo ñëwee rek ñu mën a jot boo ñëwee te ñu mën laa dimbale ci li nga xam ne nii moom ngay sàkkoo leerlu euh, wàllum ubbeeku waaw wàllum ubbeeku maanaam ku bëgg ubbeeku ci wàllu wërsëg da ngay bind ayaati kursi wu ayaati kursi da koy bind limub allahu limub allahu nga koy bind. soo koy bind dem dafa am sart sart yi mooy lan bisub aljuma nga koy bind. yéen a ngi déglu. bisub aljuma nga bind def ko ci béjjunu xarum tabaski ci béjjunu xarum tabaski kon yéen ñi dencoon ay béjjën di xaar tegtal yu ni dem leen ngeen jëlee ko incha allah ngeen def ci lii nga ci béjjunu xarum euh, tabaski. juróom-ñeent fukk ko ci sa kër. sol ko ci sa kër. su fekkee kuy yaxantu la na ko suul ci palaasam yomb na ayatu ko si ngay jël nga bind ko limab allahu allahu mooy lan jël sa misin nga def alif muy benn laam muy fanweer laam fanweer maanaam ci gàttal la lépp 66 la allahu 66 la waaye nag ngir nga gën ci mën a gindeeku defal alif benn laam 30 laam 30 ho 5 ñaari 30 boo ko boole ñaat lay jox 30 fois 2 60 la lay jox 60 plus cinq muy wóoba mooy 65 nga jël ëllif ga ci kanam nga teg ko ca mooy 66 kon loolu yow mën a xam jël leen incha allah rabbi ngeen def te ñaan yàlla barke barkeel euh, la ma cee leeral mooy sëriñ ci tey lañ gën a bëri ñi yëngu ci wàllum ñaan ak faj njàmbar yi tey la gën a lan moo koy waral. da gis koo xam ne danaan man sëriñ bu bu sëriñu jinne dem naa ci waaye daal la newoon ci sama yaram dañut damay wax ne gis nga nit da ngay jëfandikoo lu lew mooy tax ngay ñaan nga man di am résultat waaye itam yow mi ñaan itam da ngay am looy aaree say gàllaaj maanaam say bagaas da <laughs> ngay am looy aare say bagage maa nga xam ne daal du ko yàq mais sonn ci am mbind mbind bay bëgg dee jox ne du mu war ko jëfandikoo ka nga ko jox am rab rawoo bëggul mu avance tey bëggul mu avancé suba rawoo da koy yàq rabo da koy yàq ndax rabo bëggul ki ñëw di faju wér loolu boo ko xamul nag pour nga ñaanal nit am résultat day jafe waaw kon nañ fexe di aar saafara yi lillahi wa lii waaye itam ñi ñaanlu itam nañu fexe ba lenn ci ragal yàlla ne ci ñoom lenn ci ragal yàlla mooy lan nga bañ di yàq deru nit ngir sa intere personnel waaw ngir sa intérêt personnel loolu lañ koy wàññi wàññi bu baax a baax a baax baax kon yoon wi rek mooy 88 la 628 53 53 88 628 53 53 mu mel ni altine bi ñu jàll la doon nañu waxtaan lenn ci njëriñul basmala ndax waxoon naa la moom dañuy wax ba sonn bàyyi du xaaj du jeex ndax keroog waxoon naa la bas ma la ci boppam mën naa cee def émission ba émission ba jeex te la ma ca xam du jeex te la ma ca xamul moo ëpp la ma ca xam. la ah, ma ci xamul moo ëpp la ma ci xam kon ñu fàttali yoon bi mooy 88 la 628 53 53 88 628 53 53 21 heures jot na ba tegal fukki simili ak juróom fii si studio Soxna Anta Ndiaye 88 la 628 53 53 88 628 53 53 88 628 53 53 mbokk sama boo ñëwee lenn laay soxla ci yow mooy nga ne ma nangam laa tudd nangam laa sant incha allah rabbi su boobaa ñun yoon wa ñu jaar ba man laa xoolal man laa dimbale ci bang bang yi nga xam ne nii moo ne ci yow di la yàqal ban yoon ngay jaar ba mën caa def incha allahu rabbi ndax loolu kat day am solo lool. kon yoon wi mooy 88 la 628 53 53 88 628 53 53 ma bàyyi sama technicien yëkkatil ma tuuti son incha allah ba ñëw ñëw àndaata yéen nag ci yaatal bu baax a baax. ci 88 628 53 nga bës nga mën ñoo jot ci seen émission xelmu asrar fii ci rajo télévision Assalaamy FM ci 99 point 0 ci route Grand Mosquée de waaye en face pencum Paaleen mbir ma lii rek dal waa xarnu bi allahu akbar allahu akbar allahu jamono moo mën a safaa xéewal yi daf daa walangaan ci dabi booleem xarnu bi allahu akbaru samaan jamono moo mën a safaan xéewal yi daf daa wala ngaa ci tabi booleem xarnu yi di beeg chike ki chef xaraan lan daa di woo muy wala ngaan nuy xelli kopp ya dinaan wata yi kor ne xarnu yi astaghfirullah astaghfirullah 99 point astaghfirullah astaghfirullah sëriñ Abibu Caam ci liggéey bu am solo bi mbokk yi gis nga astaghfirullah googu rek boo ko ne doon liggéey yàlla saa borom saa wa taala faxasal say bàkkaar waaw da ngay tàggu bàkkaar waaye yàlla saa ba saa taala da lay ay buntu xéewal da ngay yokk yow si jëmm ba yëg ni yaa ngi yokk kon rek waaye nañ leen bëril ay istixfaar nañ leen bëril julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa xam naa ñu laal tuuti ci gént gént euh, li ma wax léegi ni gént dafa am ak wuute ci ñiy gént ak lañuy ñuy gént waaye ba léegi rek

mbokk yi gént dafa am solo waaye lu jiitu may ñëw ci ubbeeku gaay gi ak jigéen ju taxaw ji la caaju am na lu ma la ma soloon ci gént nela la gént ay dimension la lool yaakaar na war naa doy su fekkee dala am ay lënt da ngay delluwaat ci youtube ba nga bind Assalaamy TV nga mën koo bàyyi xel kon bu mbokk ñëwee rek ñu ànd ak moom ci 88 628 53 53 88 628 53 53 88 628 53 53 mbokk yi maa ngi waxtaane yéen ci jën muy gént jën euh, gis nga jën rek gént jën bu fekkee jën yu mag la bu fekkee jën yu mag la waaye yi mu ca dafa bëri jën yu mag ku gént mu nekk jën yu bëri loola day tegtale am koom-koom maanaam alal alal lay tegtale ak am koom waaw muy jën yu mag waaw gis nga moo tax gént dafa mat a bàyyi xel bu fekkee danga leen a am nag ba léegi itam alhamdulilah bu fekkee danga leen di napp maanaam danga gént di napp ay jën waaye jën yu mag la bu dee benn jën bu dee benn jën kese wala ñetti jën yooyu par rapport ak benn jën waaw bu fekkee ne benn jën la wala mooy ñetti jën kon day aw jigéen la maanaam ay jigéen lay tegtale ay soxna waaw su fekkee da jënt lu mel ni ndawal ak jën wala lu mel ni waa seen tóor ya waa waasin tóor ya waaw muy waasin tóor ya loola dana tegtale alal bu dee jën yoo xam ni dafa sew maanaam jën yu sew yooyu day tegtale leneen lu bokkut ak jën yu mag ya leen doon tegtale ndax tuuti gaa tax mhm. waaye foofa lenn ci boroom xam-xami dafa am ñu ne ak jaaxle la maanaam dafa am koo xam ne dafa jaaxle ak jaaxle gu nekk ca moom la waaye ba mën naa nekk alal ju tuuti ñoo xam ne nii ka gént jën yu ndaw ya alalam dafa tuuti wala ñu war koo jox alal ju tuuti ndax leer na ci yow su fekkee da génte gént jësit wala yëf si bilaa jësit baaxul tey baaxul ëllëg. ci gént 99 point 0 Touba. déedéet 99 point 0 Touba. gént jësit loo man ci fagaru ak moytundi ko nanga ko def ndax jësit noonu la noon nag dafa yaatu gannaaw mën na nekk noon boo xam ne day ñëw di la tegal ay ndëgg sërax ngir nga tabbi ca ndagg sarax yi yaatu na kenn ku ci ne ak na nga koy déggee moo xam sàcc ba ca la bokk ci bàyyi ba suuf sedd mu ñëw di sàcc sag jur wala nga teg sa alal wan ko gannaaw dem mu ñu ne ko tommet wala nga teg sa téléphone walla wala wala moo tax ma ne la jësit ci boppam day day tegtale noon te noonu war yëg si bi laa hmm. moom day ñu ngi naan baax na ndax day yokk jom waaye yàlla na bu nekk noon bu am doole. Assalaamy FM Assalaamy <laughs> FM 99 point 0 Touba kon yooyu dafa mata bàyyi xel moo tax ma ne leen seen xel Hilmul Asrar seeni gént di leen ci woote ñu leen koy leeralal bam leer ci yéen bu ci sarax waree ñu ne la génneel sarax sàngam ak sarax sàngam su fekkee ci cadre seet gi la nag sarax bi gën ci yow mbokk yi xam ngeen sarax lu yaatu ginnaaw la ndax sarax buy dox dafa am waaw sarax buy dox sëñ Abibu ndax xam nga sarax buy dox sarax buy dox maanaam mooy sarax boo xam ne nii duñ ko joxe tey rek mu taxaw tey lii lii sarax buy dox la lii ndax kañ ko yëkkati jox ko ko kooku da koy ràngoo di dem mën na koo takk ci ndiggam di dem mën na koo jël jox ko keneen waaye sarax buy dox dal la ci la dal la <laughs> daal la koo jox da koy solal dem waaye sarax buy dox dafa yaatu gannaaw kem li ma leen wax lii lii lii lii sarax buy dox la xam naa ña ca quatre-vingt-dix-neuf point zéro kumpu jag ma ngi leen rey ndax li ma naan lii te tudduma dara dem leen ci YouTube ba Assalaamy TV wala 88 628 53 53 wala nga bëgg ci leeral 88 628 53 53 ndax yow sarax bi ngay joxe sarax la buy dox wala sarax buy toog am na koo xam ne mën naa joxe sarax buy dox mën naa joxe sarax buy toog lii lii lii lii lii lii sarax buy dox la waaye ab doxam yàggul lool ndax tey boo ko saraxoon ndongo daara mu àgg bind ci faatiha ahum sax kon xaloon yisun wala fallax bu ànd ak ahum sax ko daxaloo yusun wala faatiha bu ànd wala faatiha bu ànd ak ayatu kursi wo wala faatiha bu ànd ak alam nasara wala wala moo xam ne mu ci bind daal nit nii lem ba mu baax mu dugal ci ndox kooka est-ce ab demam dana bëri di déedéet waaye téew na baax na ndax lu weex la lu weex la lu weex la alhamdulilah baax na kon yooyu dañu ci bëgg ngeen ciy gindeeku parce que toog di wax baax na am na solo mais dafa am lu ko gën li ko gën mooy lan mooy ka toog ci roqam am ak jaaxle yi kii téléphone am gindeeku ci ci 88 628 53 53 88 628 53 53 88 628 53 53 bëriwaay na koo xam ne ni tey furi mu ngi fa dugg di ñaanlu te sarax dong dong dong dong moo téye ay mbiram sarax. dafa am ci lool caabi la caabi maanaam bu ëppee du tëj waaye bu yéesee du tëj déedéet bu ëppee du tëj bu yéesee du tëj léeg-léeg ndeysaan nag am koo xam ne ni dana jóg di dem ne ma ngay ñaan la ji fekk ka koy ñaanal wala kam wax ne moo koy ñaanal kooku mooy tëj wërsëgam <laughs> wallahi la xasim borom xam-xam ñoo may déglu borom xam-xam ñoo may seetaan ñu tollook man xam-xam ñoo may diglu ñoo may seetaan ñoo xam ne ne maa leen sut alliwa ñoo may diglu li ma seetaan moo tax comme neex yëkkate sa téléphone nga woote da dem ci nit nga bëgg ubbeeku mu war a bàyyi ba biddiw ba leer eh, tey ñu ngi ci ban heure ñu ngi ci vingt et une heure vingt-sept ñi xam wàllum xel mu nujum xam ne ni actuellement biddiw bii taxaw biddiw bu leer la leer na nañ nañ nañ kon am nga sens ki ñëw di ñaanlu nga bindal ko ca wala nga ñaanal ko ca insha allah rabbi yàlla saa borom subhaanahu wa mën naa ubbi buntu wërsëgam defaral ko lam doon bëgg ndax buntu ba lépp leer na yoon la wu légal waaye bul fàtte nag boo noppee nga aar sa saafara ba nga xam dara du ko yàq waaye mu ñëw ne la dama bëgg nga ñaanal ma moom dafa bëgg ubbee ko nga bàyyi ba biddiw bu lëndëm taxaw nga ne da ko ñaanal ngir mu ubbeeku waaye yow est-ce que yaa ngi bàyyi xel ci la ngay def waxuma nag ci borom barke yi ak borom daraja yi maanaam ñi nga xam ne yàlla sax bi soxla dafa taxala moom da leen a baddil heure bu leen neex ñaanal nit waaw bu yëkkatoon téléphone sax ñaanal la aajo yi faju bu ñu la tegee loxo aajo yi faju seen ñaan goo xam ne nii dañ ko def ci butéel sax nit jël ko ñëw jox la aaj ji faju waxuma ñooñu waaye ñii ñaan ci wàllu xam-xamu xel mu nujoom mooy xam-xamu biddiw nga war a bàyyi ba biddiw ba leer nga ñaan ko ci nga bàyyi ba biddiw bu lëndëm taxaw biddiw bu lëndëm boobu daa am leneen loo ci war def lu bëgg ko te ñaan ubbeeku waaw ah ma yaakaar ne yow sëfoor bi yem na ay client client bi am na koo xam ne ni yor na lañuy tere oto bi police wala gendarmerie arrêté na ko gis na ci lu ñu tere nee na ku moom bagaas bi ñëpp ni tekk mu ne wàcce leen oto bi chauffeur bi ndax dangay ngay wàcce dem ne ko sa waay jàpp waaye damaa yàkkamti <laughs> jàpp ci damaa yàkkamti ndax da wax loolu ndax sax booy defee loolu duñ wax ne yow yaa moom bagage bi <laughs> euh, soo déggee may wax loolu dama bëgg ñu. jëlaat xam-xam gëstuwaat nangoo sonn ci xam-xam bañ a sukkandiku rek ci kamaataraa kamaataraa yi sekkare sekkare la tudd léegi-léegi nit mën naa bind benn xawaatim jox la ko xawaatim ba damma nañ ko war a dugalee dugaluñ ko noona nga jëfandikoo ko am problème man daal daa mel ni sama mbir day gën a doy waar ba ma demee ci sëñ bi daal ba léegi ba ma sangoo daal ba léegi daal daa mel ni sañuy rab jubuwuñ fekk na xaatim ba damm rek seen mbir commencé taxaw place ba commencé wàcc client yi ñëwatuñ ah nga demaat ci keneen mbir yi gën a tëju rek léegi nag nan mooy pexe ca la gis nga nit dana dana dana feebar wala mu feebarle ñu jox ko benn saafara mu jëfandikoo ko ko résultat yaram wa gën a am ay tar-tar mu gën a métti waaye na accélère dellu mën na ko def fan yu néew yàlla saa bara sa taala dindi jafe-jafe yenoon ci moom moo tax foofu dafa am ay sew-sew parce que am na koo xam ne ne rab woo mu yor moom moo nangut ay mbiram avancé moo tax mën ngaa jëfandikoo saafara raw wa di la soxoree bët sa yaram diisal sa yaram su boobaa boo ragalee da ngay moo tax ka nga wax ne mooy sa médecin da nga war di déggante ak moom ca yooya te fekk muy ko xam kon ba léegi ma fàttali li yoon wi mooy 88 628 53 53 88 628 53 53 moo tax ma ne am na sarax boo xam ne ni day waroo koo jox ku toog di yoon déedéet waxuma nag kii saraxete yàlla tax de nga xam ne yow la ngay def defoo ko ngir aajo waaye da nga koy def rek te yàlla tax maanaam da nga bëgg a saraxe génn saraxe ku la neex joxal ku la neex joxal mais sarax bi nga xam ne nii danga am aajo te bëgg yàlla sama borom bi subhaanahu wa taala fajal la aajo booba ah am na sarax yoo war a génne de 99.0 Touba yëmu ca waaye dafa am bis yoo xam ne dañ koy tànn nga war koo génne waaye yëmu ci sax dañ lay tànnal la nga war a saraxe jërëjëf sañ Seex Mbaay maa ngi leen di nuyu ziyaare yaa ko sëñ Moussa di leen ziar jox seen wàcc waaye day ñaan kàddu gu fekk la si jàmm jërëjëf sëñ Mbay baarakala yi itam ñu ngi lay na ñëw te di la uh, ziare bu baax a baax tey ñaan kàddu gu fekk la ci jàmm kon ba léegi ñu xool keneen ci yoon wàcc 88 628 53 53 et 88 la 628 53 53 88 628 53 53 88 628 53 mooy bu mag jokkoog incha allah kon ku ci jaar rek dañu mën a jot kon li ma la wax ci jësit bàyyi ko xel jësit nag ak mbëtt xaw nañoo niroo ci saayir waxuma niroo nañ de dama ne xaw nañoo xaw nañoo niroo ci saayir waaye ci gént ga am na wuute su fekkee mbokk sama da gént mbott mbott de ku ko gént gis nga waaju baax mbott ci boppam ku gën gis nga waa waaju baax waaw xoolal mbott ak tuutiwaayam ba <laughs> xoolal mbott ak yéemam yéemite ga nga xam ne yéemi na ko xanaa xam mbott am na koy faje tawat waaye du ma ko joxe ci rajo bi déedéet man nag fajewuma ko xam-xam da ngay gëstu ba xam am na ci doo laal mais am na ci loolu da laal waaw waaw bàyyi seex xam-xam da ngay gëstu teg ne fi mu toll nii léeg-léeg ñi nga xam ne jànguñu français bu ñu doon bàyyi Cheikh yor ay kaye ba yooyu dem ba di ñëw ah da am jot ak sa waay te ngaa seet loo def fekk la muy def da ko gëm nga bëgg ko déclassé lu bëgg bëgg caa génn du moo tax tarkal la yàlla na yàlla loolu tawfiq na la yàlla defal ndam ci barkeb sëriñ Saaliw te defal la lu kawee njorta lool rawatina résultat yi nga xam ne mi ngi commencé génn nag yàlla na la yàlla defal ndam ci résultat yooyu nga xam ni tam ndam nag yàlla koy joxe jàmm bi day sabablu rek 88 628 53 53 88 628 53 53 Baye Saliou Ndiaye Maawul Rahma ñoo ngi lay nuyu di la siyaara asalaamaaleykum 88 628 53 53 88 628 53 53 asalaamaaleykum. mbokk ak segul waaye bu ñëwee ñu jël ko ci 88 628 53 53 88 628 53 53 88 628 53 53 incha allah mbokk bu ci jaaree su ñëwee mu mën a ànd ak man ñu mën koo dimbali ci li muy sàkkoo leerlu incha allahu rabbi sëriñ Saalihu Njaay ñoo ngi leen nuyu te eh, di la eh, ziar baax ak sañ Basiiru Njaay rakk ci yow ñoo ngi koy nuyu di ko ziar bu baax di ko ñaanal jàmm ju sax te ànd ak tawfeex di nuyuwaat ak siyaare mboolem ñoo xam ne mi ñoo ngi bàyyi xel kër gi di ko safoo di ko sagoo rawat na suñu mbokk ñi sant si ñoom itam dañu bàyyi xel rajo bu baax a baax muy waa Thiène moo xam nag foo mëntu nekk te yor daara wala nga ñuy bàyyi xel nga ne ca la la war wala la la wër ñoo ngi lay nuyu te di leen jaara te di leen joxate seen wàcc waaye di ñaan kàddu gu fekk leen ca jàmm xam naa ña ma yónnee ci sama cent ba du ma mën a gis seen message ndax tey téléphone boobu damaa sore waaye bu dee ñu yor 900 ba ba mu ci doon Tigo ba wala Orange ba bu ñu ma envoyé message danaa ko mën gis loolu itam day mat a leeral ndax la ma doon wax ca gént ya ne gént mu ngi mel ne message bi ñu la am na missage boo xam ne ni ma maa booba nga ko soxla waaye am na ci message boo xam ne ni soxla ko ci jamono booba kon ñu xool keneen ci 88 628 53 53 88 628 xam naa waxtoo sax moom ngay xotti jëm ci jeex waaye rek balay booba ñu jël ñeneen ci antenne bi ci 88 628 53 53 88 628 53 53 waaw mbott ci boppam laa ne la ku ko génte gis ko ci ay nelaw gént nga gis waaju baax muy waliyu waaju baax nag mën na nekk waliyu mën na bañ a nekk waliyu waaye mën na nekk waaju baax loolu tamit lu mat a bàyyi xelal ku gént ay mbott ku gént ay mbott yu bari ci barab kon day mbokk yi wallaahi gént day lu mat a bàyyi xelam parce que am na ci ko tey man naa dégg ma ne ku gént gis mbott gént na gis wàllu waa ji baax keneen nag gént ay mbott yu bari mu ne ko yow de gént nga gis ay wàll yu wala nga gént nga gis nit ñu baax déedéet ah du benn de du benn pour mu leer ci yow mu ngi xam ne yaa ngi toog sa ruq di bind ngir bu ëllëgee koro la man de dama gént gis am mbott nga ne ko gént nga gis wàll yu waa ju baax mun na la ci ëll sa rek ma gént at gis ay mbott yu bari nga ne ko dañoo yokk déedéet yokkuñ de mbott yu bëri foo ko gis wali foo ko gént gis ko wali yëxsibillah wala yëxsibillah la ñuy wax moo topp ci gannaaw muy ah mbugalam yàlla day nar naa wàcc foofa de musiba naaru laahi yéen a koy dégg <laughs> moo tax gént lu doy waar la moo tax ma leen gént bokkuñ ay dimension dimension la nee naa la fukki nit mën nañoo gént te lañ gént du bokk la muy tegtale waaw loolu moom waxtu wu ne dama koy joxe misaal ne ka jot message su merci dama rappelé ka jot message moo xam ban transfert d'argent la mën a doon ñaata transfert d'argent ñu am ci àdduna bi ah ka jot message su whatsapp ka jot message instagram ka jot youtube alerte ka jot ka waa ñooñ ñëpp ndax dañoo mën a jotandoo message ci benn jamono walla benn benn minute bi walla ci benn heure bi nga bëgg ñoom ñëpp nga boole leen benn message bañ jotandoo sañu man jot naa message de xoolal ma ko nga xool message ah yow de dañ laa yónnee xaalis ñaata la cinquante mille la yow de kii ñëw ne la suñu xoolal man ba xam yow dañ laa yónnee message ñaata la cinq mille la ah xam nga kon bokkuñ xaalis la waaye nag kii ñëw xoolal ma dama am missage yow de dañ wax ne la promotion am na <laughs> moo tax daal gént yi mhm. lu ma ta bàyyi xel la 88 la 628 53 53 88 628 53 53 mbott yu bëri ci barab daal kon mbugalam yàlla dana fa wàcc wala sibila waxuma jël ni de ku gént gis mbott yu bëri la wax ci barab wax day leer waxuma ku gis ay mbott ci barab ne ku gént gis ay mbott yu bari ci barab waaw mbonaat nag ku gént gis ko mbonaat ak mbott day boo xoolee xawlu ñoo bokk ay bëgg-bëgg ndax ndox ma ñu nekk waaye ndax ñoo bokk tolluwaay topp ma insha allah bi ci biir émission xel mu asara dina gën a leer ak yow munaat ba léegi walliyu lay tegtale walliyu waaw munaa moom walliyu la mën naa bañ a doon waliyu carrément waaye day nekk jaamukatu yàlla waaye du ci yem day bëri xam-xam day bëri xam-xam waaye bu fekkee yow si yëmma yemoo ca dangaa gént gis ko nag sa kër dangaa gént gis ko sa kër waaw loolu loolu beneen affaire la par rapport ak nga xam ne nii dafa gént gis mu naan nii rek waaw mhm. Mhm. kon 88 la 628 53 53 ndeysaan jërëjëf sëñ Abibu mu ñuy fàttalil sunu wëllëre di kenn ci presse bi muy sëriñ Moustapha Niass Serigne Moustapha Niass noppalu démb ñu waajalal ko tey fële ci Touba Daaru Xudóos moom noppalu na ci Touba Daaru Xuddus lañ ko waajale waaye denc nañ ko fële ca Bàqiya waaye ñaanal nañ ko itam fële ca table soxna may tey jii lañ def lépp kon ñu wax inna lillahi wa inna ilayhi raajiwoona inna sëriñ Moustapha Niass ñoo ngi sàkku kenn ku ci ne fa nga ne nga def faatiha bu sell fukki lixlaas ak benn ñaanal ko yërmande ak njëggal moom ci presse bi la liggéey nga xam ne li gën a yéeme mooy tey presse bi bañ fa demee di ko jaal ji ay mbokki boppam waaye di ko jaale ji ay jegeñaaleem ak i am du jàmmam lu yéeme dafa xew muy bañ dajee ba war a jël suñum jaal jébbal ko waajuram sañ xamsatu mbàkke moom sañ sooy ba dafaa ñëw fekkee njaal ma ñu def muy lu yéeme loolu xam na nii gis nga jëmm jooju rek comme tax a jóg di dem ci ab dëjëm kooku xam nga ne kon du ndaw waaye message bi ci gën a bàyyi jara bàyyi te xel mooy lim daal liggéey ba tax nit ñi xam ko waaw nga xam ne ñim daa jëflante dama caa tudd kooku rek waaye soxna maa yi si mbàkk en kafe teew na fa nga xam nag moo ko am satu ñoo fa daje ak yeneen kilifa yoo xam ne ni mën naa na ñangu te mën naa am sax gisuma leen ñoom jëmm ji ñuy jàkkaarlool ci image yi muy Serigne Moustapha Niass su daa jëflante ak ñoom di jëflante ñeneen ak ñeneen kii la ñoom ñu dem fa xam ngeen ne kon day jëmm ji amaana beneen wàccuwaay ci doomu aadama yi waaye amaana te wàcc ci yàlla saabaro sa wa taala ndax nag yàlla saabaro sa wa lan la waxoon mbokk kaay ma wàcce la ci àdduna mbokk ne ko ah, doomu aadama daa xaw a sàggante ñu baal ma ci waxin bi waaye damay wax wax joo xam ne nit ñi danañ ko mën a dégg ba gën caa bàyyi xel yàlla ko kaay rek garaawul boo ñëwee ku la jokk ma jokk ko ku la dog ma dog ko sëñ Moustapha mii na bokk si ñi daa jokk mbokk moo xam ñu mbokkal presse bi bu ñu waxee presse bi mooy ñi yëngoo ci média ngir ñu xamul presse nga xam ne ci biir mbokk yoroon seede am na ko ci wax sax ne benn événement léeg-léeg day am nga xam ne presse ba war nañ faa dee waaye ñoo xam ne ay xat-xat tënk na leen moom mu ne déedéet bàyyi leen ma dem xam nga ne média day am logo bind ca turu entreprise ba comme nga ne asalaamiya bind ko taf ko ci micro bi ab bi def noonu ndogal production bind ko ab logo taf ko ci influence bi def ko ci micro bi keneen keneen def noonu ñoo dajee fenn tàllal seen micro mooy waral bu ñuy def conférence de presse nga gis micro bu ci ak lañ ci bind mooy tax nga mën a xàmmee ni kii kat demoon na kii demoon na waaye moom lenn am mu dem bu àggee yóbbu logo boo xam ne du am wala micro boo xam ne du am benn logo su ñëwee kenn ku ci mën caa jot kenn du xam ko liggéey liggéey jërëjëf sama technicien bi macha allah tabarkàlla <laughs> mu ngi liggéey liggéey bu am solo xoolal xoolal xoolal lii rek xoolal ji liggéey tabarkàlla kon lii mooy Louga waaw lii nga xam ne boo xoolee xam ne micro bii micro télé sangam la micro bii micro télé la micro micro télé la waaye moom nag mu andi logo boo xam ne nii wala micro boo xam ne du am benn affiche ci kaw bañ naan lii télé sangam moo ko filma wala télé sangam moo ko filma bu ñëwee kenn ko ci ne mën saa jot kooka la ñuy delloo sàkku ci ñi ñuy déglu kenn ko ci ne la nga man ci ay ñaan nga def ko la nga mën ci ay ñaan nga defal ko ko te ñaanal itam njaboot gi mu fi bàyyi yàlla sax ba saa taala yàggal leen fi lool te wéral leen kon waxat inna naa wa inna ilayhi raajiwoona dafa am ci doomu aadama nag bu dégg baatu inna lillahi wa inna lan la ñu wax mooy ku faatu gis nga wax xolof njaay def di lébu naan oh, wax su defee nopp yi koy diglu ñoo war a wér wax soo feebaree nopp yi koy déglu war wér nit ki da war a fexe ba xamul nit ki la muy wax maanaam li ñuy wax naan bul fil gémmiñu sàmm te xamoo la muy wëlis inna lillahi wa inna ilayhi rajiun loole li muy tekk ci gàttal mooy ci yàlla lañ jógee te yàlla ci la ñuy delluwaat kon kooka lam jógewoon ci yàlla war a delluwaat ci yàlla moo tax ñu wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun waaye ma fàttali numéro ba ngeen mën a jotee ci 88 628 53 53 yéen a ngi seen émission xelmul asraar ñi bëgg a firlu ay gént ñi bëgg a xool ngir xam seen tabiha ñi bëgg xool ngir xam seen biddiw ñi bëgg xam xeetu sarax yi gën ci ñoom waaye itam yëmu ca ci couleur itam incha allah rabbi dañu ko gën a yaatal baax a baax ndax bëgguñoo ñoo yekk togg ñu ñu ngi ci gëstu couleur yi couleur yi. waaw sëñ Abibu mi yan xeeti couleur moo gën ci moom Baye Fallou yan xeeti couleur moo gën ci moom Baye Cheikh mi yan xeeti couleur moo gën ci moom waaw moo xam jaaroo la moo xam yëre yu sol moo xam waaw nag dafa am loo xam ne ni gën mën na am ba pare nit du def loola xam ne li moo gën ci moom waaye defu ko moom day suwaare rek lu mu suwaare sol yooyu ñu ngi ci gëstu incha bi ngir bëgg jotaay bi di gën a yaatu waaye itam yéen ñi nga xam ne nii da ngeen a bëgg ñu leen dalal ci émission bi man ngeen a jaar ci 77 861 53 25 77 861 53 25 même bu fekkee yow mi seetaan mën ngaa jaar ci numéro yooyu ci bàyyi écran bi muy 900 boobu boo ci jaar rek. incha allah ba léegi dañ jot da bëgg ñu daral la ñu waxtaanee sa xam-xam même sax du émission xel Hilmul Asrar waaye yeneen émission yoo xam ne nii bëgg ngeen ñu leen ci dalal incha allah bi ngeen ni leeral seeni yëngu-yëngu nga xam ne wenn saan la woy jam ñaari picc wala sax wenn saan woy jam ñaari ndubin laa mën a wax sax <laughs> ndax day rëy waaw ndax rek ñu déglu ci rajo bi 99 point sero waaye du ci yem day jàllal ci YouTube ba ndax bëriwaa na rajo yoo xam ne ñu ngi lay daral mais bu noppee boo ne fan laa ko mën a seetaane ñu ne ah xanaa ñu rediffusion ko waaye kii waxuma la dégluwaat waaye da nga koy mën a seetaanaat kon lu am solo jaar leen ci 77 861 53 25 77 861 53 25 incha allah bi ñu orienté leen bu ko defee fi ngeen mën a jaar yëpp ngeen mën faa jaar wala euh, ba léegi itam. numéro yi bëri na waaye loolu bokk na ci yoon yi nga xam daal mën ngeen caa jaar kon 88 la 628 wala nga jaar ci 77 611 94 11 77 611 94 11 77 611 94 11 damay wax nag nit pour yor bagage ba mu bëree bag ne duma ko fa yóbbu wala mu néew bag ne du xeeb naa ko du ko fa yóbbu déedéet loo yor andil même yéen yi nga xam ne ni da ngeen a bëgg ku leen filmal seen programme yi dangeen ngeen di ziyaar ci kilifa yi cant yi wala màggali wala lu mu mëntu doon wala ngeen am ay daayira euh, group Assalaamy bàyyi na leen xel bu baax a baax caméra yu disponible gis nga li ma gën a neex ci Baye Fall mooy dafa am caméra rëboo yoo xam ne da ko fixé ci studio bi maanaam man fi ma nekk nii ay caméra rek ñoo may dara. kenn taxawu di régler nga xam ne boo amoon cant wala màggal caméra yi nekk fee tegale naan dojjat filmer la na ko bëggee waaye amul gars yi dañuy def émission xaaral ba heure sangam déedéet heure boo soxlaa rek wooteel incha allah bi ci numéro yooyu ñu wax la muy 77 611 94 11 77 611 94 11. wala nga woote ci 75 100 53 29 100 maanaam da ngay def 1 ak ñaari 0 75 1 ñaari 0 53 29 75 100 53 29 incha allah rabbi lu mu ci mënta doon da ngaa bëgg sax ñu déplacé defal la ay émission yaa nga fa nga ne ñëw tegal la ko loo ci bëgg rek asalaamiya pare na pour loolu rawat na màggal gi nga xam ne nii danañ def nag pour moom màggal soo waroon a fay fukk soo ñëwee da nga fay juróom-ñaar ak genn wàlla soo waroon fay ñaar fukk soo ñëwee dañ la ci wàññi lenn lu ci ne dañ la ci def ay promotion yu mucc ayib incha allah kon teel la woote ci numéro yooyu teel def seeni euh, commande wala seeni demande boo ko defee ñu teel leen a bàyyi xel waaye damay ragal ngeen bàyyi màggal gën a jege si nag ñu bëgg ngeen bëgg ku leen filmer te boobaa léegi-léeg caméra yi fekk ne gars yi moom teg nañ ci loxo ba noppi da ngeen di teel a baaxee lu ni mel kon jaar lañ ci 88 la 628 53 53 yéen ñi bëgg a firi lu gént wala ngeen bëgg a seetlu ak la caaju incha allah 75 153 29 75 153 29 75 153 29 75 153 29 wala nga jaar ba léegi ci 77 611 94 11 77. 611 94 11 77 611 94 11 mën ngeen jaar foofu incha allah rabbi bu fekkee ci émission xilmu asrar ngeen bëgg ku leen fa dalal wala yéen ñi nga xam ne da ngeen yëngu ci wàllum ñaan ak la caaju bëgg itam ñu def ay déplacement ba léegi 77 la 861 53 25 77 861 53 25 incha allahu rabbi ku ci woote bu soobee suñu borom nañu jot xam naa ñu baaxe leen leerale leen génn gént jox leen benn tegtal door a yëkkati jotaay bi waaye balay booba numéro bi mooy 88 628 53 53 waxuma nag ma jeexal émission kenn ku ci ne dama woo naan na maa seetloo waaye waaye wutiwu fa dara jënd kër woote <laughs> loolu laa bëgg soo émission bi jeexee koy wooteelu di seetlu wala firlu gént su boobaa li ma la wax xam ngeen ko leneen ngeen def waaye duñ. leen seetal noonu kon bul jënd crédit boo xam ne ni buña la wala bonus waaye da ngay jënd crédit simple nga mën caa woote soo ñëwee nag fekk émission bi ñu tegaat ko mën ngaa woote ba léegi suñu techniciens yi ñu ngi fi danañu arrêté incha allah rabbi say soxla su ko defee bu ñu ñëwaatee nag bu ñu def émission mën cee leeral nga mën di ko bàyyi xel altine ju si ne 20 heures jàpp 22 heures incha allah rabbi

wala ma def ko ci max rek man na maa andi ku gént max lan lay tegtale waaye duma ci yem su ma demee ba war a jeexal dama indiwaat len na ci njariñal max kon max ku leen gént gis nga euh, aw nit ñu mën a yàq aw nit ñu mën a yàq gis nga leen foo ko gis nag ñaare day am lu fa yàq foo ko gis rek ñaar xamal ne am na ñu fa yàq ci misaal moor njaay kat bëgg naa takk faatu njaay soxna waaye moom daal tëdd na ba guddi mu gént ay max ci kër faatu njaay wala ndey faatu njaay mu gént gis fa ay max na xam ne foofa de am na ñu fa yàq léegi nag ña fa yàq man naa tegtale soxna sama bëgg am ñuy dox ci diggante bi di yàq waaye mën naa tegtale am ñee ñuy yàq ab deram wala ñuy yàq ci biir kër ga moo xam luñ mëntu yàq waaye ak yàq daal ma nga fay am foofa nag bu ku teg soxna si baaxut de <laughs> déedéet soxna si mën na baax ba pare ak yàq am fa mën na ñàkk baax ci yow ba pare ak yàq am fa lan moo lay xamal ne la soxna sii nga xam ne nii kat yaa ngi koy bëgg labat takk ko soxna indi sa kër te soxna si gënul ci yow lan moo lay jox firnde yooya mooy yow waañ nga ba jekk ne man ba subaa damay dem seeti soxna si duma tudd benn tur ndax am na ñoo xam ne nii ay tooñkat lañ mën nañoo daggaloo ak kole ko def ko istati fekk am na ko ñuy ñaawal waaye léegi-léegi am na foo xam ne ngay tudd wenn tur rek ngir exemple doonte ñu ngay tudd sax mën nga leen bañ a xam eh, yow yaa ngi labat soxna si waaye nag yaa ngi ne man sama yoonu njëkk laay jug seeti ko waaye tëdd nga ba guddi gént am ñax man nga génte ñax ak mbooy la nga jaar ci di dem ngir war a seetu soxna sa si biir gént gi yaa ngi jaar ci biir mbooy gi soxna sa boo ci duggee loo am am am am ci rëccu ngay mujj ndax soxna sa du sa soxna doo nuru sa soxna lan mooy firnde ji mooy mbooy gi nga jaar ñax ma woo moom nga gént gis ko ba pare di ci jaar rikk leel dëgër nga bopp xëy nga suba am lu la gàllankoor kon kat sa rawxaan yow bëgg na laa dimbale wala yàlla saa ba subhaanahu wa bëgg na laa dimbale jaarale ko ci ay gàllankoor ndax su ma yóbbu ci rawxaan ba rek day mel damaa fàtte ki ñu moom yàlla bëgg na laa dimbale nga xëy mu tegal gàllankoor ba mënoo dem mais gàllankoor boobu nag mën naa ba ñu doon gàllankoor yaram buy métti wala yaram buy diis waaye am nga gan wala am nga benn soxla boo xam ne ni moo tee nga dem ca loola nga toog ñaari fan ñetti fan nga jàppaat bis bëgg dimaan nga géntaat ko te nga te nga woote ci 88 628 53 53 ñu gidd la wala geneen gént gum doon ndax soxna sa nga jëm bu gënoon ci yow doo jaar ci mbooy bu gënoon ci yow ci lan ngay jaar wooteel ma leeral ci lan ngay jaar <laughs> euh, dañuy far wax xam lépp wax lépp baaxut wala xam li ëpp wax lépp kenn mënu ko waaye léeg-léeg dafa am ci xam ne nag kenn dina ko dàng ci pénc mi waaye restaur restaurant lay doon restauré lay doon kon restauré boo xam ne nit ñi woote bu ñëwee da leen ci mën a dimbale moo tax nag léegi-léegi dañuy am yoo xam ne ni dañuy tibb jox leen waaye bàyyi fii la des keneen ku ñëw ñu mën ko caa leeral kon ñu jàll ci max googa ma loon wax nee na boo géntee gis ko ci kër géntoo gis ko sa kër goro ga nga war a dem waaye sa kër bopp nga ko gént am na ñu fay yàq jugal nga wut ci ay ñaan moo xam yaay si ñaanal sa bopp wala dañ say ñaanal waaw Babacar Diagne tëdd na bu guddi gént këram ay max na ci fagaru waaw fagaru ci boo ko sàgganee ak keneen ku mu mënta doon <laughs> léegi nag wërsëg fattahu risq bëgg nga ubbeeku utal ma ko guy insha allah rabbi nga binda wa isaara aw tijaaratan aw lehwan in fadoo ilayha wa tarakoka xaa'iman qul maa hinda llaahi xayru min allehwi wa min attijaarati wallaahu xayru raasixiina nga bind wa isaara googu juróom-ñaari yoon la ci bu fekkee ne bu fekkee laa xam nga sa tabiha xam sa bis xam sa biddiw ngay bàyyi ba sa bis ñëw sa biddiw taxaw nga bind ko su fekkee sa biddiw dafa lëndëm bàyyil ba biddiw bu leer taxaw nga bind ko ca insha allahu rabbi max guy ko boo koy wut nga bàyyee xel ne du ma dañ mukk di wax ne li feeg maa ngi dund du dañ mukk di wax ne képp koy wuti garab wala nga am loolu wuti ci garab ci ak garab ndax man nga wuti loo xam ne nii du garab gi waaye ci kaw garab ga la nekk muy lu ci mel nii ak max su boobaa sa takkandeer bu mu nekk ci kaw max ga loolu moom duma dañ di ko wax su fekkee garab la sa takkandeer bu mu nekkee ci kaw garab ga waaye su fekkee dangaa dem ci marché ba wala jumaa ja ngir bëgg tibb ci suuf si marché wala suuf si jumaa wala nga dem ci suufu xorndong bëgg caa tibb sa takkandeer bu mu nekk ca kaw suuf sa moo xam noo ko taxawee waaye sa takkandeer bu mu nekk ci kaw ngay tëbba te la ngay tibb sa takkandeer di ci ànd loo leer na nañ koy moytandiku bu baax a baax a baax a baax baax kon wa isaara aw tijaar na mu nga noonu di ànd ak maxu guy nga bind ko incha bi def ko saafara def ci parfum bu amul alcool muy parfum yi ànd ak saafara saa yoo xëy di ci laal su la neexee nag mën nga caa sangu juróom ñaari fan di ci laal loolu day dox ci wàllum fàttu risque maanaam ubbeeku wërsëg am na koo xam ne mën naa bañ am bayra de mais wërsëgam dafa ubbeeku ay xéwal la ko fekk si am na koo xam ne mën naa am bayra mais pour mu am dara day jafe foo taxaw nit ñi wër la di loolu yomb na waaye fa nga taxaw ba nit ñi wër la wala fa nga toog di wax ba nit ñi di wër la sàcc ba jaaroo fa rek coppet sab téléphone <laughs> wala sàcc ba jaar fa ne sàccat sab téléphone ñaar ah, sàccat beneen téléphone yóbbu moom koy aw wërsëgam dafa ubbeeku ndax lam fa am yow ma fa taxaw di wax ba nit ñi wër la amoo ko fa dag faa ñàkkee waaye yaa ngi taxaw nit ñi di la wër moo tax mën a la bayra ak ubbeeku dañoo niroo waaye kuñ am na ñoo xam nag bayra gannaaw lañu am bu ñu wanee nit ñi gannaaw ñuy wax si ñoom moo xam da ngaa wan nit ñi gannaaw dugg ci biir suuf wala yafsi billah <laughs> ñuy wax ci yow wala da ngaa romb nit ñi door wax ci yow kon yooyu yëpp xeeta bayra la dafa am wuute su ko defee euh, ku ñu bëgg jot rek kon numéro ba joxe woon ñu bàyyi ko xel da ngaa bëgg ko la dalal wala lu mu ci mën doon rek jaara ci 77 861 53 25 77 861 53 25 incha allah rabbi di leen dig daje lundi prochain altine même heure même fréquence incha allah rabbi waxtaane xam-xam ak la ca ajo waaye comme ni la ko waxee ci numéro yooyu woote leen ci ngir ñu man leen a orienté bu baax a baax ànd ak yéen ci liggéey bi gën koo yaatal seen mbokk loon seen xarit Seydina Ousmane bu Serigne Saliou moo nekkoon ci wàllum waxukaay gi sëñ Abibou Thiam ak ñim feggool ci wàllum xarale ga sëñ sànn bi yaay sëñ Saalihu Njaay bàyyi seex ci côté bële ak ñay seetaan ak ñëpp rek xañ na kullim danga am ñoo bàyyi ak ñi nga xam ne nii ñëwaat nañu sama gannaaw te man séenuma leen ñoom itam day ñoo ngi leen di bëre nuyoo te di leen ziarwaat di leen ñaanal jàmm ci sax te ànd ak tawféex di jégguluwaat bu baax a baax ci émission bi ñoo xam ne lu ci jublu ne ci yàlla sunu borom la subhaanahu wa taala waaye lu ci dëngalu ne ci mën la ci gàtt xam-xam ci matali seen mbokk la seen xarit Seydina Ousmane bu sa Saliou wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ba dimanche ak jàmm waaye balay boobu itam yeneen itte mën nañoo dam ñu ànd ak yéen incha allah ci liggéeyu kër gi jërëjëf yaa nu mi ngi gane àdduna ci atum 1914 ci dëkk bii di ndaam daaru xalimul xabir di dëkkub sëriñ ndaam Abdourahman Lo li tax mu ganee àdduna ci dëkk boobu di ndaam daaru xalimul xabir di dëkkub sëriñ ndaam Abdourahman Lo waajuram wu jigéen wa di soxna Aminata Kandi Bousso booba dafa bokk kon ci waa barsàq ñi sëriñ tuuba seexul xaddim yóbbu woon